بسداق مليون نقدا بفرج الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان جمع الله شملهما وأداب نسلهما وبارك لكل واحد منهما على صاحبه نسلا وفق بهما خير آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نسرح لك صدرك وودأنا أنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانسب إلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير بينهما خير من ألف شهر tanazzalu almalaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salaamun baynahuma salaamun hiya hatta matla'i alfajr bismillahi irrahmani irrahimi qul audu birabbi alfalaqi min charri ma xalaqa wa min charri gaasiqin idaa waqab wa min charri nafaasaati fi luqadi wa min charri haasidin idaa hasad بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس لخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس مالك فال may nañu ko Aminata Suwaame kon yal na ci Yàlla suwaa bi yal na ci Yàlla def barke bi jaay rasulillah sallallahu alayhi wa sallam tabaarakallahu ahsanul xaaliqiin sëriñ bi nag mooy mottali ñaan bi alhamdulillah alhamdulillah bismillah allahuma amin allahuma amin allahuma amin amin ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin amin ya allah amin ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin allahuma amin allahuma amin allahuma amin amin ya rabbal amin ya Sëriñ Mamadou Sow nee na mooy magi Pape Samba mi nee na moom ay kàddoom nag da koy jëmale ci sang bu baax bi di sëriñ Babacar Samake wallahi julit àq na ngi nii wàlliyu Kamal nee na 1999 la ñëw fii ci almadi tabax këram yéeg ci kaw yéeg ci kaw nee yéeg ci kaw gis ko moom mu gis ko moom mu nekk fii di fi commencé juma mooy fii ñu nii tey jii nee na boobaag léegi. mooy moom kilifa lañ ko def. moom Almadi yëpp kilifa lañ ko def fii ci Almadi. ñi fi dëkk ñëpp nekk ay jullit. nee ñi fi dëkk ñëpp nekk ay jullit. ñëw dugal ci seen loxo. ñëw ci jumaa ji seen loxo. jàppale Serigne Samake. jàppale Serigne Samake. bañ egsi fi ñu egsi. Ah, moo tax bu ñu toogee ci jataay bu mel nii. war nañu ko sant war nañu koo gërëm. war nañ ko ñaanal yàlla muy yàgg ci suñu kanam nee na sëñ bii nga xamante moom la fas fii muy ci diggante Malick Fall ak Amina Koté dañuy ñaan yàlla rek yàlla na yàlla barke sëy bi am nañ ci yaakaar ndax jëmm ji toog ndax jëmm ji toog teewe ko ah Mamadou Dia Mamadou nee ay santam nee na day am na fu mu commencé mais amul fu mu yem nee na fu bëtam xonqe ma Mamadou Sow mii mu ñëw seet si Serigne Samake mii mu dalal la ñaanal ko kon nag mu ngi leen di sant yéen imaam yëpp teew imaam Mbaye imaam Sané Mamadou mu ngi leen di sant di sant waa jàkka ji yëpp waa jumaa ji yëpp nee muy moské nag. dafa am ay frais de fonctionnement mooy électricité muy ndox képp koo xam yàlla mën na la ko kees gii ñu teeg mën nañ cee barkeelu kon boog sëñ Mamadou Sow nee na mu ngi leen di sant di leen gërëm sëñ bi nag dañ leen ciy tegal dara moo di ni doole ba dara manqué wul jumaa ji sox jumaa ji soxlawul dara ndax ñoom kon nag sëriñ bi neen mu ngi lay sant yàlla na yàlla sàmm njaboot gi. maa ngi lay fay suma waa yi macha allah euh, tey nag bésu mbégte la euh, tey bésu xew la naa Poté sa jigéen la waaye Malick Fall tamit xam nañ seen relation ak ran daan na yow tey nag nekk bésu mbégte ma bàyyi la nga nuyu internet. waaw di nuyu ñëpp rek di la sant di la gërëm di nuyu adduna bi yëpp di bëgg nag ci bis bi kontaan contentement la xol bu neex maanaam ci gàttal ah. di leen ñaan la ñoom ñaar ñëpp parce que ñoom ñaar ñëpp ay borom baax lañ naa ku baax la Malick Fall tamit noonu nekk nit koo xamante suma nit la sama copain sama seex waaw ma koy ñaanal nag eh, yàlla na leen cat romb di dem yàlla yàlla bàyyi leen ànd di dem ba ay bant yu am maanaa feeñ ci ci kàttanu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw macha allah yaa ngi wax léegi sa copain la sa xarit la te li koy firnde mooy bi ñu ñëwee wane ni sax yow lépp loo xam ne moo xew ci xew bi yaa ko def ah, ci organisation yaay woo nit ñi ah, te yombul ñuy gis lu mel noonu Amady Badiane di ko def. waaw loolu moom ma war parce que loolu la ma ji lu ma xew le taxaw na ci muy naqar bànneex mu nekk nit koo xamante ni il comme ça il dafa il est maanaam ci gàttal muy naqar bànneex lépp lu ma xewle wala su ma lu xew le mi ngi ci da ciy da ciy taxaw taxawaay bu am maanaa kon donc moom bu xewlee damay takk sama ndigg matal lépp ba mu mat ci kàttu Seydina ba lépp yem loolu moom ma war waaw ma ko ma ko ñaanal daal jàmm salaam ak wér ak wérle mook soxna si waaw. boo leen xoolee kii copain d'enfance am la ñii ñoom ñii ñoo defandoo armee ñoom ñaar ñii. ok Malick ak ñaar ñii ñoo defandoo armée kee nijaayam la papaam la kee mooy seen géwélu juddu. Saint-Louis lañ jógee ñoom ñii Saint-Louis lañ jógee. Hmm. kii moo fi nekk Wakaam ci kaa bi nekk Wakaam. Hmm. waaw ñii ku leen xool xam ne Mali rek a taxaw. ci réew mi. waaw loolu moom am na exemplaire la bëgg na nit bëgg na ay bokk bëgg na ay xaritam bëgg na ay yaayam ndax ñun ñii yaay la ñuy wax ndax ay magam lañ mm-hmm. ndax dañoo yàgg moom Médoune mii xam na ci dara mm-hmm. loolu yàgg na démbal ak kani gay papa gay xaar mm-hmm. waaw lu yagg na dëgg la te bu mu ñu jàppee ba tey bàyyiwuñu bëgg nañu fonk nañu respecté nañ te ni mu mel lay mel da ne ko Amina nañ dem fii sax mu ne dem leen toog vraiment demul dikkul moo xam nag li mu bëgg ci sëyam bi yàlla na ko yàlla defal nekk sëy bi ñu takkee ci aras ci barke yonent bu tedd bi yàlla bu ñu séddale dara ci gànnaawam vraiment nit baax la yàlla na yàlla na baax kenn man li ma waroon li ma waroon wax yëpp kani wax na ko waaw am naa mënu ma wax ci moom ndax mbaaxam euh, bu ne euh, nit baax na dañ ne mbokk yaa ko wax te ñun ñi fi ne ñooy ay mbokkam waaw man dama koy ñaanal rek sëy bi barkeel loolu rek laay wax. yàlla na say bi barkeel te jubale ko ak boroom këram. Hmm. lafal ko cat. may ko wér. Hmm. bu wéree rek lépp lépp dina baax incha allah.